c'est politique ci Equivox TV ñëwaat ci beneen numéro ànd ak caporal Ousseynou Fall di leader mouvement génération patriote ngir Sénégal raw kilifa gi ñu ngi lay maa ngi lay fay Seydina Ousmane. ñu fàttali ni armée def la dàq ci atum 2016 jàpp nga ni ci anam gu jaarul yoon la ba fu ne wane nga fa injustice bi ci gàttal histoire bi tax armée dàq la ci lan la sooke. bon ci sama blessure la sooke euh, ma blessé à ji euh, ñu war ma évacuer sax bàyyi ma ma fanaan ba j'ai eu à perdre mon œil droite nekk hôpital di faju un commandant est derrière moi porté ma déserteur ci porte déserteur boo xam amul xamul moom sax jàpp moom ci boobu xam ne ni teg ko fenn parce que j'ai montré des preuves palpables yu wane ne j'étais dans l'illégalité ñu jël ma taxañ ma sa jël ma dàq ma noonu ci sans droit te armée boo ci dugg da ngay apte kon boo ci génn tamit da war a apte may dàq def ma conseil discipline def ma conseil d'enquête def tribunal militaire def commission de réforme ñu dàq ma sans droit ni pension déposé naa pour am pension ñu bañ bind naa ba bind même le président de la république mais tey ba ñoom kenn ci ñoom moo mos a tontu mooy le médiateur de la république et il m'a donné raison je l'ai l'ancien na ko yàlla xare àjjana Alioune Badara Cissé dama ko bind ne ko def réparation d'une préjudice ko mu xool ko moom bii bind général bi dafa ko bind une demande d'indemnisation au profit du caporal Ousseynou Fall général nag ki kenn mënu ko indemniser parce que dafa retraité à 11 ans de service noonu lañ jaaree depuis 2016 31 décembre 2015 sax laa waroon a jeexal 2016 nag ci lañ ma man j' étais maintenu par raison de santé parce que bi ma demee 31 décembre def visite médicale le médecin certifié que le caporal ne pas être libéré parce que dafa blessé bëtam dafa tuur dafa yàq dafa nekk ci ay rendez man bi may dàq le février sax le 7 février amoon naa rendez-vous à l'hôpital principal sama rendez-vous ba léegi demoo fa bi ma dàqee avant ñu may dàq euh, le médecin Sidi Matar Seck j'avais cité son nom c'est un capitaine de médecin naa leen kii mën nañu ko génne armée parce que bi muy dugg armée dafa aptu kon bi génn armée dafa war aptu te man defal naa ko kéet goo xam kenn mënu ko génne ne ma téye maintenu par raison de santé entend naa ñu jëse dossier constitué ko yóbbu commission réforme ma def un mois janvier kon ne di commencé di liggéey le 5 février nag beneen décision waaj boo xam général Modou Sow moo ko bind dans le caporal naa kaa rendre paquetage et rentrer chez lui ak sama inaptitude à la libération ak décision bi nga xam moom la médecin généraliste bi joxe noonu la ñu ma bëgg a bëggee ma armée depuis boobu lan nga def ci ay jéego taxawaay bi depuis 2016 ak léegi def na cinq ans. bind naa ñëpp dara. bind naa ñëpp ñoom sax waxoon nañ pour waa waa euh, DIRPA instruit woon nañ leen pour ñu tontu ma mais amuñu benn preuve boo xam te ne man ñoo tegg li may wax. j'ai eu à échanger avec des officiers yoo xam ne ñu foofu des officiers supérieurs ñoom seen bopp nangu nañ ni caporal da laatuñ lii erreur d'administration ñoom nangu nañ ko. parce que loolu sama cas mosu am ci armée jamais ça jamais été. yow yaa ci exception. man maa ci exception. nga gaañu am certificat inaptitude la recherche ñu boole ak sa certificat loolu ça manque de respect la. Hmm. vis ak administration militaire mais euh, médicale. un médecin militaire. quelqu'un qui a fait sept ans jël nekk chef de garnison jël këyit dañ ne kii il est inapte nga salfaañe àq ak yelleefu médecin boobu sax ay droit salfaañe ko ak këyitam gi mu amee valeur nga sànni ko ci mbedd bi. jël ki nga xam te ne médecin ne kenn mënu ko libéré nga libéré ko par la force général Moundou Sow la moom mi xam jàpp naa ne c'est le général le plus minable le plus lâche de toute l'histoire de l'armée sénégalaise capitaine Modou Dieye bi bàyyi hmm. ci règne Moundou Sow la bàyyee le colonel Abbas Fall en temps de guerre la bàyyi armée en zone sud dem Nations Unies ci règne Moundou Sow la bàyyee ñi bàyyi nga xam ne soumettre document pour mën a bàyyi ëpp nañ 1000 ñi bàyyi nga xam ne soumettre ñu benn document administratif dañoo xëy ñibbi dem seen yoon ëpp na 1000. te damaa jàpp ne armée bu yàq Modou Sow moo ko yàq. damaa jàpp que ni moom dictature la samp armée bi mu ñëwee. samp fa tamit genre man ñun fii li fi dox mooy homme et femme mais chaque genre gëmuñu ko ñun moom moo ko njëkk a instru instruire armée. Modou Sow bi ñu koy fal ñun ñëpp dañoo yaakaaroon ne général bi bi ñu koy nommé et eh, dina développe parce que Nsowaa la jaar. jóge ENSOA amul woon sax bac bi muy jaar ENSOA jóge ENSOA def concours ENOA def am bac boobu def concours ENOA di rampe ñëpp yaakaar ni kii vraiment bu ñëwee ak sama moom fi mu jaar ak jaar-jaaram bu ñëwee dina dafa armée mais dafa ñëw li mu njëkk a def mooy budget bi muy fekk ñun budget militaire bi muy fekk ñu def suñu def suñu mu deseñu dafa ñëw il a à la présidente de la république en disant que je travaille pour le président xam lu yàq Sénégal mooy suñu institution yu mag yi président wu leen a tabb une commission cellulaire mooy war a tabb tey un général de l'armée nga ne je travaille pour le président loolu leneen la bi mu ñëwee ñëpp ñi xamantoon ni yaakaar ne il pouvait faire face comme sama genre bi yenn décision yi yi ñu ko exécuter parce que c'est pas légal sax hmm. wax ñu foofu loo xamante ne vraiment ña fa nekkoon ñëpp. savait nettement que le général li wax te ko ci dëgg te ko ci yoon. parce que mënoo engagé 600 personnes. en Côte d'Ivoire Senbar 14 RCI bi fa demee am fa ay décès ay moor deux morts am fa ay accidents yu métti métti yu grave mu ñëw fa amul lu mu ñu wax loolu vous fumez du sabre indien vous buvez de l'alcool di këpp samay oto ku fi këpp sama oto dinaa la rapatrier dagg la jëgu oto ba pare libéré la à un bon entendeur salut man ma jàpp ni loolu. ma jàpp ni moo taxaw mu ñëw foofu Côte d'Ivoire ma jàpp ni loolu di fi kilifa président de la République Macky Sall ñëw na fa bi fa ñëw il nous a donné boobu ñu ngi waaj a kat euh, euh, euh, l' indépendance. li nga wax ni ban période la. ak ci ban mission la woon. Simbad 14 Côte d'Ivoire. c' était en 2014 wax nii. les les gens peuvent peuvent peuvent en témoigner. la vérité ce que je dis. mu ñëw ñaari ñaari baal yooyu la ñu wax dem yoonam. ñu jàpp nañu am nañu amuñu am nañu chef mais amuñu ay leader. l' a eu la chance d' un leader moo xam ne mooy le général Birame Diop bi mu ñëwee il a tout rénové bi mu ñëwee ne man. du ma du ma njiit buy jiital par di fakasal li war a dem ci om yi jox leen ko om yi li war a dem ci ñun ñun ñu jël ko mais mënu war li nga xamante ni moo war dem ci om yi nga jël ko boole koog li nga xamante ni moom nga moom tey boo xoolee armée officier supérieur rek ñoo fi tekki armée sénégalaise hmm. pour nga tekki faa nga nekk officier supérieur salaire homme de troupe yi baaxuñu militaire du rang seen salaire yi baaxul salaire sous-officier yi baaxul mu ñu retraité yaa ngi leen gis sécurité gardiennage seen retraite baaxul officier yi subalterne seen salaire yi baaxul seen retraite di baaxul il faut nga nekk officier supérieur pour nga mën a am ay privilèges te faa nga bokk ci système bi pour nga mën a am ay privilèges. ah système de financement. am na système. Ah. dans l'armée. Hmm. am na nangul yenn yenn exécution yi tu vas jamais commander. comme hmm. te ay tey mën naa la citer ay quelques jours. tey man jàpp naa ne mënoo jël général Mourou Sow di ko def chef di bàyyi le général Cheikh Wade di bàyyi le général euh, Pape Samba Camara. le qui a dans l'armée hmm. koo xam te ne jàpp na ni kii moom bu ñëwoon ci armée dina dina def rénovation bi biram def dina def lu ko raw hmm. parce que xam na lan la armée di lan lan la Sénégal lan la lan la militaire di dund bañ na ko bu biir ko yóbbu sapeur pompier gis nga la mu def sapeur. léegi bu bàyyee kii jël kële nag loolu nga wax foofu noonu. mais damaa jàpp ni l'homme qu'il faut dans la place qu'il faut bu ñuy nommé suñu autorité militaire dañ ko war a tànn xool bu ñu xëy rek kii ah yow nga wax ni kii am na jaar-jaar. dañu jóge NSAWA dugg fii ba ñëpp amatul yaakaar et tout am na jaar-jaar boobu waaye. jaar-jaaram lu mu manqué le. lu mu le mooy courage. courage waaw. te man jàpp naa président de la république bu la wooyee sax na la ma yii par sens de l'honneur à la patrie war comme lan par exemple yaa ngi insinué ni waaw euh, président Macky Sall warul ta wala président warul mun a tabb euh, ci maanaam euh, institution yu mel noonu ndax mën nañu affaire politique nangam est-ce que. dafa mës a am yu mel noonu. parce que dañ ko politiser l'armée c'est politisé à quatre vingt cinq pour cent tey seen gars yi ñuy fal ne da ngay naan oui ak li président bëgg muy neex askan wi ak mu leen di naqari te l'armée ne fait pas pour être aux côtés du président de l'armée mais pour la république sénégalaise askan wi ñoo moom armée parce que ñoo leen di fay yenn décisions yi boo koy jël da nga ci war a sóoraale askan wi tey mille personnes yi mu daax deux mille personnes nga xam ñoo dundee sama salaire an am na décision boo koy jël da ngay xool au préalable est ce bu la ko tegoon wala ñu teg sa doom dina la neex. da nga jël un Sénégal danger la milieu yi nga xamante ne dañ leen former ñu xam lu bëri ci biir activité ñu bàyyi leen noonu libéré leen. sans def mais danger la parce que Sénégal boo xoolee tey Sénégal muy dëkk boo xamante ne xamuñ ñaata retraité wala ñaata radié ñoo am Sénégal. tey je je les lance un défi ñoom. Hmm. administration militaire ñu wax ne ñaata nit la ñu radié d en deux mille ak seen position fan la. xamuñu nous sommes danger. léegi ñooñu ñuy bàyyi noonu ñuy dem. dama jot ni mën a ah nu parce que man tey jàng naa loo xamante ni man je suis un caporal formateur et encadré dans l'armée jàng naa lépp man bu doon aw am naa beneen idée mën naa def leen. tuur sa bët bi. boo benn FQA laa doon formé. Hmm. xam nga man li ma def ci armée yu formation ay jeunes militaires ak ay tey man j'ai formé des officiers de l'armée j'ai formé quatre mille personnes dans l'armée sànq ma prison fii. toll ci ñoo xam maa ngi formé ñuy foofu maa ngi di nuyu ñoom di tey j'ai formé des médecins militaires tey j'ai formé ñoo xamante ne nii ñu ngi gaz ñu ngi gendarmerie ñu ngi police comprendre jàng naa xeetu jàng boo xamante ne ci armée bu doon dañuy jug rek def wàllum lu ñu bëgg def. wax ji ko ñu xam. yan nga jàng man yan nga ci xam. jot ko transmettre en terme de kii. ak li di waaw. moom moo ko formé QRF. QRF mooy. section wala compagnie mm-hmm. d' intervention bi xam ne sous raison bi fu yëngatu ñoo fa war a dem ñu ko formé en Côte d'Ivoire mm-hmm. am nañ ci lettre de félicitation am nañ ay yenn xeetu jàng yooyu jàng ko ci armée jàng nañ ko tamit ci. dama bëgg nga laal ko dafa am solo. ñu mën a xam exactement oui. yeneen en dehors yooyu. parce que tamit armée boo xoolee euh, tout métier yi nga xam ñu ngi ci biti ñu ngi ci biir armée. Mm. c'est la vérité te journalisme bi nga def ni mu ngi ci mécanicien mu ci biir armée tout domaine contient l'armée tout tout l'armée contient tous les domaines mais qu'aucun domaine ne contient l'armée domaine boo gis dans la vie civile am na ci biir armée te sama médecin militaire yi du ma ne man ñoo man médecin civil mais bokkuñu sax carrure bokkuñu sax patriotisme hmm. c'est-à-dire ñun suñu xeetum jàng ak xeetu jàng civil du benn te boo xoolee moo tax Afrique dëkk bu développé ci Afrique xamal ni administration militaire moo ko développé. xam nañ heure wàcc. ñu ñëw ci li yàq bët bi. guddi googu lan la woon wala bëccëg boobu lan la woon à vingt lan nga doon def. dama explique process euh, sama soldat yi. à Dodje. gendarmerie tactique numéro deux. bi may démonstré xam nga la caporal fait démonstration. pour montrer ñi nga xam te mooy les soldats. bi may démontré nag fekk am na benn bant bu ne sama kanam gisuma ko. loolu démontré c'était la nuit on était au niveau de reconnaître un point. Hmm. reconnaître maanaam nooy reconnaître benn renseignement d'ordre tactique ou technique sur l'ennemi hmm. dans un point ou dans un endroit en engageant éventuellement. firil ñu ko ñoo xam. cela veut reconnaître mooy da nga jël ay renseignement ci benn point wala ci kenn. Hmm. te boo booy dem di ko jëli da lay wer ni mën nga dajeeg ennemi bi kon tu vas engager le combat kon lépp li nga xamante ni wàllum acte réflexe acte élémentaire wàllum méthode de déplacement. wala méthode de combat lépp da nga ko war a booy dem ci loolu doon def na avec les jeunes di leen ko jàngal parce que bu demee Casamance wala dans les théâtres d'opération loolu la ñuy appliqué. mais paradoxalement nga leen doon wax loolu pour ñu sóoraale yow sóoraale woo ban. man sóoraale malheureusement. loo ci jàngee. bon euh, jàng ni il faut que ñuy jël suñu ay précautions parce que man j'avais des lunettes blanches. Ah. mais li yàlla lay def. Hmm. bi may jël sama sama felt moom ak laa tegandoo ma jël felt ba fa lunettes dem même pas cinq minutes ma heurté bant bi sant yàlla bu baax nag. noo ko heurté. ko mbëkk gisuma ko sax bi wu laa ko mbëkk. bant bi nii la def maanaam bant nga ko dóor sa tànk mu fekk si la ci kaw la garab la garabu nii ma ko ni may nii rek laa ko heurté. daw bi c'était quoi lépp ci démonstration bi la woon mooy ne boo xam ne il faut que jël beneen. nga daw parce que tey booy déplacé wu am na foo xam ne dox am na foo xam ne da ngay da ngay ramper am na foo xam ne da ngay daw c'est le mode de déplacement d'accord bi may daw di leen wan ci laa heurté bant bi heurté naa ko cinq minutes nag ñoom xam ñu ne caporal heurté na bant bi. parce que dama continuer j'ai continué le combat. boo demee ba xam ne am na luy topp sama bët bi pour man damaa damaa fil nii rek ndekete rectile bi la toj. Mm, mm, boobu yaa ngi doon gis ba léegi. maa ngi doon gis ay quelques yi nii. mais mënoo fanaan. Hmm. à Dóoji moo tax sama bët yàqu. parce que waroon fanaan. waruma fanaan bu doon officier doo fanaan bu doon jabaru général doo fanaan bu doon doomu général doo fanaan waruma fanaan. dañu woon hélicoptère ma dem Dakar ñu faj ma parce que j'étais dans l'exercice de mes fonctions même fekkee j'étais pas dans l'exercice de mes fonctions ñoo war a ñëwee seen élan bi accident dañu war a jël si parce que ñoom ñu ci ñoom laa bokk. peut les ñoo xamuloon degré boobu wala da nga bëgg wax ñoo xamul degré parce que un infirmier moo fa nekkoon. bi ma gaañoo tag dama dellu kaam ba ci capitaine Thiam yaa ngi ko yàlla xaree àjjana hmm. ne ko moo capitaine xool ma sama bët bi salle de bain gis bët bi yuuxu ne bët bi na caporal ma ne ko tuuru mu ne waaw mu yóbbu ma infirmerie il n'avait pas les moyens la ma defal bandal tafal ma ko ñu xool may leen léegi yóbbu leen ma Linguère bu fekkee ne c'est pas grave moo ñëwaat ñu ne ma non non c'est ma mais da ngay ba suba capitaine il m'a dit réellement mu ngi àjjana du ma ko fenal il m'a dit ne ma caporal mun ngeen a évacuer tey parce que amuñu ambulance ambulance dafa panne mooy benn am nañ carburant mais carburant bi war a dem ci 10 euh, 17 euh, euh, benn benn camion bi war a jël ravitaillement suba rek moo fi des kon il faut nga xaar bi suba ñu jëlee ravitaillement ñu yóbbaale la à ci kawam bëtam dafa tuuru condamné ma capitaine Thiam de mais xam nga ñenn laa condamné. l'hiérarchie. mooy parce que mënoo jël ay doomu jàmbur largué leen à doji tey bu doon accident plus grave bu mel nii ñoom fu ñu jëm kon. da ngay gis en zone sud dans les théâtres d'opération suñu yi di paan ñu koy pousse je suis témoin oculaire c'est pas normal te ñu autorité kat kat yu mool la yor ci suñu xaalis kon da nga wax bëgg wax ni yéen ñi nga xam te yéen a féetee ci euh, degré caporal souvent dañ leen di yónni foo xamante ne c'est des mission suivies à la mais tey tey le caporal il a trois trois hommes commander le sergent il a dix hommes neuf et lui dix hommes mais tey sergent mën nañu ko yóbbu mission de combat mission de de d'infiltration ak groupe am mais souvent bi ñuy déplacé dañuy déplacé ak section bi wala ak groupe minimum deux groupes mais danañ yóbbu ci ay mission yu dangereux mais lépp da nga koy def parce que patriotisme bi la jiital. d'accord euh, mu mel ni patriotisme da koy faral di wax ñu koy gis ginnaaw bi nga génnee armée nga intégré parti politique. dañ koy faral di gis yéen on a vu le cas capitaine Dièye yaa ngi koy cité sànq ba léegi euh, nga jóge fa créé tamit benn mouvement boo xam dañ ci dégg patriotisme euh, euh, lan la lii da nga ko dundaale bi ñu nekk foofu lu tax yéen ñëpp bu ngeen génnee da jàpp ni yoon bi daal mooy ñu sóobu ci politique lan la. waaw parce que environnement bi ñu dund surtout Casamance gis ñoo xamante ne Sénégal de am ay Kanante Gambie ñu gis suñu frontière xam suñu frontière yi ñoo xote dee amul sécurité à 100 cent parce que am na frontière yoo xam ay dëkk yoo xamante ni amul position ne li ma génne armée et su ma toogee xeexuma ko dina fa génne ñeneen kon naa dugg ci langue politique xeex ba injustice bi ma dal du dal keneen armée loolu tax ma dugg ci langue politique. ndax ngeen jàpp ni ci politique rek ko mën a réglé. foofu rek a réglé jàpp naa ne tey boo toogee ci biir ne da nga xeex carrière ba mu am sax pour am ko pour xeex doo ko am. mais xeex bi lan la yéen ci yéen comme ni di ko wax di ko dénoncer. di ko wax di ko dénoncer ba wàññi na. waa bu baax armée. ah oui bu a baax. te loolu si seen taxawaay la. ci ñun nag suñu taxawaay la. lu fa yendu lu fa fan lu fa yendu fanaan ci ñun. ah oui ah c'est sûr. lay toujours cette possibilité ngeen ñu leen di mën di renseigner. même bu fekkee ba tey on a des renseignements clairs ci lu fa xew dañ koy xam pour man koo wax am ñoo xam ne kenn du ko mos a wax. Hmm. jamais de la vie. ndax la lu yëngal réew la. xam nañ ci lu bari nag. xam kenn du na wu ci wàllum pour ñun man jàpp naa on a mutualiser l'armée et la démocratie en Europe aux États-Unis doo fa déggee coup d'état parce que l'armée est au cœur des affaires tey mënoo jël laisser en rade l'armée ne ne vous êtes des simples exécutants simple exécutant boobu moo tax ñu dem bay filistre wu fipp. vous êtes au cœur de l'État. non non parce que le renseignement fait partie. non l'armée fait l'armée fait de la du du renseignement. oui mais tey suñu renseignement bi ñu gën a mooy le ministre de l'intérieur la sécurité et le renseignement. mais au sommet cest di dire fi ñuy décider. le président de la république toog leen. tooguñu fa te dañ faa war a toog bu ñu fa toogee ay coup d'état dootu am ci Afrique dañ koy un capitaine def nii rek ak mbooloom rek le colonel bi muy coup d'état dafa xam ni kii fi mu jëmee réew mi baaxul parce que ñoom kenn du leen ci informé dina leen laaj ci yenn yenn yenn ce qui concerne la sécurité yenn yi lañ leen laaj yenn yi ci des kenn la dañuy xëy jël ay décisions yoo xamante moo tax gars yi def ay hmm. coup d'état coup d'état xam ni. le gouvernement ou bien les politiques ont échoué on fait recours à ñun daal loolu moo tax ñu dugg ci politique. Hmm. pour ñu jéem a xool nu ñuy def ba revaloriser l'armée sénégalaise. loolu tere woon ànd ak ni capitaine Dieye wala. waaw capitaine je l'ai man naa wax ne bokk naa ñu ko génne kaso. ñi ko génne kaso. ñi ko génne kaso. comment. capitaine Dieye bi ñu ko tëjee man je suis la seule personne un ancien militaire résident au Sénégal def benn interview ci benn chaîne. demande au président de la République de libérer le capitaine en disant que nous avons besoin de capitaine qu'il nous fasse comme qu'il fasse comme un Thomas Sankara parce que jàpp na Sénégal fu mu il faut moom administration militaire. ah oui. bi ma ko defee vidéo vidéo bi génne. il a fait plus de trois cent mille vues. vidéo bi génne ñi nga xam ne ñoo les militaires du rang de l'armée sénégalaise def benn lettre ouverte au président de la république cité nommément sama ne nañ ko delloo ay droit ba pare réclamer la libération du capitaine ñu def deux ans ñu bàyyi capitaine capitaine même maladie au téléphone bu doon yéen civil duñ ma ñeme. ay c'est la vérité. àndoon naa moom mais bi ñu ba ci biir. Hmm. musuma adhéré na ci mouvement. nit déedéet musuma ci adhéré. Ah. bëggoon na ma adhéré ci mouvement. toogal ko Thiès bëggoon na ko mais bu defee ko ma nekk ci yeneen engagement. parce que jàpp naa ni. le serment du soldat ñëpp xam na ko moo tax ba mu amee problème ma jàppale ko. le serment du soldat nous avons juré de servir avec loyauté et de ne jamais abandonner un camarade quelle que soit sa situation au combat dans la vie au quartier et de tous les jours moo tax ma jàppale ko mais politique yenn facette la yenn domaine la. mooy bi mu duggee ci politique moom ànd ak mouvement nit dem euh, euh, choisir le président Idriss Seck. Hmm. ci élection présidentielle yi. dafa fekk ne man tamit boobu fekk na ma choisir le président Idriss Seck de par son programme. de par son programme. Hmm. parce que programme dafa ci def ñaari ñaari am solo. mooy haute autorité de la démocratie ak autorité des médias loolu dafa am solo ci réew man lu ëpp lu tax ma choisir ko loolu la bi ñu ko choisir ñoom élection présidentielle ñu jël deuxième hmm. après ñu gis revirement bi Idrissa dem ànd ak euh, Macky Sall capitaine Dièye moom bokkoon na ci ñi ànd ak Idriss Seck ci décision boobu mu jël ba ne moom ànd na ak Idriss Seck je me bien il les appelait X et Y ci texam boobu mu def hmm. ànd ak président Idrissa ci mouvance présidentielle dem ba ci bi gis ci boppam génnaat ba muy wax ne génn na sama ko defee à la Sen TV kon revirement boobu jaaxal na ma benn deuxièmement mooy lu tax maa moom ba léegi euh, bokkutuñu ay gis-gis mooy il était un opposant radical. Il a beaucoup tiré sur le gouvernement. Il a beaucoup tiré sur l'État du Sénégal. Parce que qui tire sur l'armée, tire sur l'État. L'armée, c'est l'État. Hmm. Il a beaucoup tiré sur les autorités militaires. Taï Degna Mounemom, il est, il, est, il est au milieu. Il est patriote, il est, c'est quelqu'un qui connaît l'État, d'accord. l'État, c'est l'existence. Mon diable, nek militaire, c'est bien. Nek un officier de l'armée. capitaine man maa ngi koy reproché cohérence il n'est pas cohérent il, il vient hmm. s'il n'est pas opposant mu dem librement ne man je suis au pouvoir mais il ne pas être au milieu juste au milieu parce qu'il était opposant pur et dur hmm. loolu laa koy te qu'il arrête de tirer sur les opposants am na ci benn émission bu ma dégg mu ne pas d'opposants au Sénégal s'il y des opposants moom capitaine wax na ko y' a bari na man je suis un opposant de Macky Sall un opposant radical. et on sait que tamit yaa ngi ànd waaw je je euh, suis même avec je l' choisi. mais loolu est ce la. ñoo jógee ci Idi dara ci waaw non Idi dañoo opposé dañoo coalisé dañoo coalisé maag moom. coalition ba jeex bi muy dem ñu ne ma da ngay dem la décision de Idriss Seck. engagé wu engagé nullement. bokk naa ci ñi ko njëkk a wax. rester dans l'opposition. mais est-ce que tamit il n'est pas moom it bu fekkee dafa ànd ak Idi yaakaar dafay jël réew mi Idi génn mu génn. non génnul de. Ah, dafa ànd ak dugg ci biir mburoog soow. ba léegi génn ci mburoog soow dem ba ci biir mburoog soow. ca la reversement bi amee nag yéen discours yi mu bàyyi ko. juróom naan naa ci coalition Idi. waaw ah. ñaari fàll ko ba muy taxaw capitaine Dièye taxaw daan ne euh, décision bi Idriss Seck jël. c' est parce que suñu programme moom moo am solo moo tax Macky Sall ànd ak te ànd na ci ànd ak Macky Sall boobu noonu. Hmm. capitaine Ndiaye àndoon ci. lan moo tax mu def révélement bu dañ xamul parce que man wax naa ne ma ne le parce que y' d' autres officiers yi nga xamante jàpp na ne bëggatuñu armée. jàpp nañ na ne bëggatuñu armée. Hmm. te capitaine Ndiaye gënu leen intelligent école yi mu jàngale gaa yooyu jànge tey par exemple Macky Sall bu jëlee capitaine Ndiaye nommé ko ministre. suba nga yaakaar ne yeneen élément sincère duñu bàyyi yeneen officier duñu bàyyi ñi am salaire trois cent mille quatre cent mille nga ñëw une fay salaire cinq millions gars yi duñu bàyyi dugg ci langue politique nga foog Macky dee xalaat loolu man kat li ma ko doon conseil mooy ki rester dans l'opposition xeex comme ni doon xeexee su xeexee nag ba ñu falu en 2024 na am poste mais nii nii nii revirement bi muy def nii man jàpp naa ni arrangé wu ko da ngay far fenn wala mais amul endurance bi te amul cohérence bi. en que soldat nga ne amul endurance. amul endurance. incohérence de amul endurance soldat souvent boo nee soldat mooy endurance quelqu'un qui est dynamique. mais il tergiverse il tâtonne dans l'obscurité ba léegi xamul fu muy taxaw. mooy problème ba ko. c'est ça son problème. c'est mon avis certes mais je le conseille. d'accord qu'il revienne et qu'il s'impose dans l'opposition. am na fa place kenn ëpp ko xam-xam nag. ay hmm. gars fit lañ ko ëpp foofu noonu. li nga ko doon digal mu ànd ak Bougane. mais pourquoi pas bu dëggalee boppam daa na il est dans l'opposition. yow lu tax nga choisir Bougane. waaw Bougane dama ko choisir parce que damaa gis ni euh, ku jara ku ku ku jara choisir la. Hmm. parce que koo xamante ne sans. réussite est-ce que ce n'est pas kenn say xarit su ko fële sëñ Modou Kara daal mu mu am nu mu def ak moom est que du loolu aussi taxawaay boobu mu amee woon ci seen mbokk moom. kan ci. kon mbokk moom nga xam dafa sujjootal sëñ Modou Kara dans l'exercice de ses fonctions. kooku. waaw man a maa njëkk a taxaw ne. Hmm. buñ ko dàqee. bu fekkee dañ ko dàq ci sujjoot teguñu ko ci yoon. parce que demal ci statut police nationale. Hmm. amul fenn fu ñu bind boo sujjootee ñu dàq la. et pourtant des commissaires sujjoot hmm. yaa ngi ci net bi te dàquñu parce que il s'agit de sëñ Modou Kara Mbacké seulement doon kenn kenn du ko dàq sama sama maam sama sëriñ sëñ Mansour si boroom daara yi amul woon porte parole policier est-ce que nañ ko man jàpp naa ne sëñ Modou Kara la moo tax ñu dàq policier boobu mais li ñu ko dàqee du sujjóot bi de nee nañ ko dàq par abandon de parce que ñu ne bi muy sujjóot il était en tenue mais il n'était pas dans la tenue correcte parce que tey boo solee tenue sol tenue ensemble tenue takk sa ceinture takk tes attributs te solo beere tu n'es plus tu n'es plus dans la tenue correcte. il faut mu mat il faut mu mat. moo tax mu ne dans maanaam loo mën a def rek mën na jàpp ni civil. ñoom boobu il n'était pas dans la bonne tenue bi ñu si président hmm. des fois gis ay militaires yoo xam te ne ils sont en tenue correcte beere ou casquette di nuyu jigéen. d'accord kon léegi sa choix yi ci loolu. mooy bi ko dàqee aussitôt gis Bougane Gueye mais devoir am la. Hmm. Bougane Gueye donc dañu dong waru ko def. am na ñeneen ñu taxaw xeex daal ne nguur gi ki li ngeen ko dàq dëgg du yoon. c'est un fonctionnaire de l'État koo xamante ne dafa contestant 2007 la Pape Boubou Diallo. koo xamante ne armée la njëkk a nekk vingt cinquième beera il était avec le capitaine Dieye xeex Casamance ba admis police def beaucoup d'années à la police koo xam kenn mësu ko ci dara gëm-gëmam moo tax ñu dàq ko te loolu du yoon. du yoon du yoon. alors euh, euh, major Kandji également gis nañu moom it man naa bu dee def bu dee def politique il n'a qu'à assumer ses bu dee sécurité mën na cee wax jàpp naa. bu dee politique aussi mën na ci wax. Hmm. mais tey mënul ñëw dans le domaine journalistique. yow gën la cee bëgg la cee gën a xam yow loo ci xamul. bu dee loolu am. parce que man jàpp naa ne tey bu duggee ci wàllum fisc wàllum domaine wàllum impôt ba wàllum redressement jàpp naa ne. yow est-ce que le ko ciy wax duñ ko. non non bu dee li mu c'est pas fondé ci ci ci ci wàllum fisc bi ci coowal Bougane bi. c'est pas fondé parce man dama ne on doit payer des impôts. waaw ah. on ne doit pas liquider des adversaires politiques. mais sur cette question jëm ci Bougane jàpp nga ni Bougane dafa amel fisc xaalis. man jàpp naa ne Bougane amelul fisc dara. man su ma jàpp naa ne da nga naan firnde moo seen conseil d'administration ne yurul leen dara. loolu loolu raw na firnde. waaw loolu yow man ñooñu mun nga leen gëm parce mun ñu wax le contraire li bëggaan doon xeex def boobu léegi mais dama bëgg en dehors de ñoom ñu fa nekk lecture bi ñuy am yow nga am lecture bu yooyu firndeel ni man kat bi coow li amee dëgg naa génn naa xool colmaté ça et lii laa am dara du ko dindi mu am ay signature yu firnde foofu laa est que yéen nga ci niveau man jàpp naa ne j'ai vu yi waaye ne ñoom fay nañ leen amel d'autre part Macky Sall jàpp naa ñoo war a fay des TV des des médias ñoo war a rembourser li des fay parce que deux poids deux mesures mënul même bu fekkee nee nga man bu ma kenn fayal damay fay la loi elle est c'est pour tout le monde Bougane même boo fayee dañ lay delloo. Mazor Kañ ma balance la nekkoon dañ ko faa viré. dañ ko fa viré émission balance la nekkoon Mazor. ak Pape Ndiaye dañ ko viré parce que dafa dem ba tergiversé xamatul politique la war a def wala dafa war a ñëw pour analyser loolu mooy problème bi te Major man jàpp naa bu fekkee dafay ne moom wane na ni euh, c'est un digne militaire un gendarme jafe-jafe yi am lu tax Major du ko wax ci télé bi Major la mu tax mais dafa war a wax jafe-jafe ni am ñoom parce que fa la servir tey bu fekkee il fait de la politique. la grande muette. li secret de la profession mooy lan. gars yi war a dundee mille deux cent nga jox mooy secret de la profession. gars yi war a may oto yu baax nga jox leen oto yu bon loolu mooy secret de la profession. y a des secrets on ne pas. te ñun secret yi nga xam masoor xamu ko on a la guerre on a beaucoup d' opérations. Major certes il était militaire mais li mu def lépp gendarmerie la ko defee il était OPJ Major commencé wul ci Bougane rek Major ci ci ci ci capitaine bi la commencé le capitaine euh, Seydina Omar Touré ci moom la commencé yàgg ko lu mel ne xamante capitaine chef kon Major jàpp naa ne li mu def lépp pour Macky Sall parce que il a un mouvement de soutien. Ah waaw à Mbacké Major benn Major bokk yaakaar la bokk Major naa ka assumer ses responsabilités mu ne man je fais de la politique. mais bul ne am naa ay firnde yuy leer ne 2019 la woon redressement bi mais fiscalité 2019 2020 xanaa waruñoo redressé waruñoo fay entreprise yëpp dañ leen redressé ok fay naa mais bu leen wóor naan ok war ñu mais moom D-Media nee na leen ma ñaata laa leen ñu ko génne ñaata la ñu yan mois ak yan mois ak yan mois laa leen yoreel ñu génne loolu man jàpp naa li ñu war a wax li ñu war a wax euh, fiscalité bi euh, impôt et domaine domaine li ñu impôt li ñu war a wax mooy. tey ku ci mel ne Pape Ousmane am entreprise am di jël de milliers et des milliers de sénégalais ñooñu war nañoo xool ñu def ak ñoom certes war nañoo fay impôt mais ñu exonérer tubaab bi di bàyyi sénégalais yi euh, euh, le gouvernement de Macky Sall fan la jaar ak waa Wari fan la jaar ak Wari le gouvernement de fan la jaar ak waa Tigo le gouvernement de Macky Sall fan la jaar ak waa Joni Joni mais damaa jàpp ne président Macky Sall travaille pour les pour pour les occidentaux tey entreprise yi ñu fi exonéré yëpp tey bu ñëwee ci wàllum coronavirus bi six mille milliards la six six cent milliards la jël ci mille milliards yi exonéré des entreprises yenn yenn entreprise yi exonéré ay Eiffage yi exonéré ak entreprise turque ak entreprise marocain yi te boo demee Maroc du ñu exonéré entreprise sénégalais yi Maroc tey boo fa demee boo fa nekk un privé mais yow bu ñu defee appel d'offre Pa Ousmane bu mënee gagné lii man jàpp naa ne moom lañ koy jox d' accord moo tax nga jàpp ne kon en 2024 dafa war a abal. day dem. kon cette de ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. point. amul interprétation amul interprétation amul leneen. lu mu wax. que ni ci euh, résultat législatif yi leeral. Mahmoud Saleh waa tontu na ko keneen ki mu tudd. yaa xam tontu na ko jeex na. d' accord dem Je suis candidat à la liste proportionnelle de la commune de Thiès-Est. damay gagné parce que li ma indi lu bees li ñu indi ñun secteur informel bi yëpp secteur bu ci nekk dugal na leen suñu liste. d'accord dinañ am occasion ak yow ngir yaatal ci programme bi indi ci local bi parce que am nañu euh, programme yoo xamante ne ci wàllu euh, duñ ko yàq euh, lan nga jàpp ni bi nga génnee arme ba léegi yaa ngi koy wax. xëy na bari na. jox ma ci li man jàpp naa ni tey ñun ñi nga xamante ne nii dañoo bàyyi lépp dem armée am ay blessures yu metti ñenn ñi am ay accidents yu grave ñeen ñi tëb ci ay mine ba léegi ñu ngi lalu hôpital IHO euh, tëdd ñeen ñi durant dix ans ñu ngi fa tëdd mu ñu am sa ay soins yu am solo yu leen defal ils ont été abandonnés ñenn ñi dàq nañ leen ci jaaj doole goo xamante ne nii du man sama kaa bari na mujj gi dañoo mujjee moom ñoom muñ ñoo xam seen ay famille tas nañ man gis naa ñoo bari ñoo xam ne seen famille tas nañ seen i jabar abandonné leen dem parce que dañoo blessé amuñu ay pension armée laissé leen en seen famille famille abandonné leen seen soxna tas seen doom dem comme jàpp na loolu ñu war résoudre te am réew bu ñu ci nekkee dañoo gën a xool la mooy sensibilité bi sensibilité bi ñu dem ci ba jeex cela veut dire mooy tey mënoo respecter benn dëkk te respecté woo mais bi mais mënoo respecter bi nag institution bi te respecté woo ña fa ña fa nekk di fonctionner mooy troupe bi kon président de la république Macky Sall deux ans moo ko dese ci biir deux ans mi noonu na jéem a revaloriser sunu secteur militaire bi parce que mooy tax ñu mën a am am garantie. Mm-hmm. am na leen lu mu def loo xam te ne kontaan naa ci. Mm-hmm. mooy le contrat bi mu def suñu diggante ak Mauritanie ñu bëree ngi wax xamuñu contrat bu ko téye parce que en 2013 il y avait des menaces bi terrorisme bi duggee Mali 2014 2015 amoon na ay menaces de terrorisme partout dans Dakar partout au Sénégal mais bi ñuy bi ñuy Aziz Ben Abdel Aziz de la Mauritanie euh, amee ay problème ak président Macky Sall boobu c'était pour. faire pour ñu dugal terrorisme biir Sénégal en passant par la Mauritanie parce que am na ñu jàppoon Podor c'est en 2013 2014 onze personnes la ñu woon moo tax contrat boobu man man ànd naa ci pour stabiliser fexe ba terrorisme dugg Sénégal en passant par la Mauritanie kooku président def na ko te ànd naa ci leneen li mooy général bii bees bi ñoo xam ne fal nañ ko Cheikh Wade dañ koy ñaan wala dañ koy loo xel ci ñi nga xamante man jàpp na ay doomam lañ yi yenn mbir yu bari yi nga xamante ni président euh, général Birame Diop tegoon na ko moom mu ngi koy mu ngi koy mu ngi koy teggi Birame Diop bi mu ñëwee événement bu événement bu jotee militaire bu ci ne dina am lu mu la jox moom tabaski weesu na te tabaski bu la paase Birame Diop vingt cinq mille la jox woon tabaski weesu na saway joxewu ko kon man jàpp naa ne boo ñëwee gis nit ku def lu baax war nga ànd ak moom wala nga topp ci tànkam ba mën a am ni mu général Birame armée yàqu na yàqu goo xamante ne une refondation totale moo koy defal. refondation totale. yenn officiers supérieurs généraux yi nga xamante ne amuñu palte amuñu place ñu ngi toog Dakar ci bureau climatisé amuñu xëy ñu jël ñu dañ leen jël yóbbu leen ci zone militaire yi dañ leen fay ay millions te duñ te liggéey boo ñu def yóbbu leen à la retraite anticipée comme yeneen dëkk yu mag yi def. plus de vingt euros ñu ngi ci bureau yi tëdd kenn amu ci xëy loolu yàq xaalis la Sénégal te xaalis boobu ñu leen fay xaja ci homme de trou bi xaja ci veuve yi veuve yi nga xam seen jëkkër dañuy dee ci guerre amuñu pension ba amuñu dara. comme man jàpp na de Sénégal dans sa globalité dans sa globalité lépp injustice la surtout injustice sociale bi war nañ ko réformer. ban ci théâtre d'opération yooyu ñu sa fekkee doo yoo xamante ni bëggoon na le 15 décembre 2012 euh, bi sama taaw di juddu Ndeye Roqee Fall jour dama rébelli jàppoon ñu ngi ma jàppoon à maa ngi jegoon jibi jonn nekk jakay kombali ñu ma jàppee ak jibiyam maag jibiyam foofu sa daana jululu maa ngi nekkoon benn position bu tudd jakay kombali nekkoon caporal d'ordinaire dem jibi jon yóbbu fa dafa yóbbu viande pour waa jibi jon wàññeeku ba jibiyeen cadre bel inter ma foofu man ak chauffeur taxi Jakarta taxi moto bi ma yoroon euh, mën naa jàpp ne torturé ma pompeloo ma laaj may information mais comme que je suis militaire je préfère mourir que de tourner le aw ma benn information bu may jox en tant bu dul sama tur. yan bari na ñaata ngeen bi ñaata lañ seen chef yi nu tudd te man amu woon droit joxe information information yi ma amee droit joxe mooy nan laa tudd sama nom et prénom sama matricule ak sama grade. pendant quatre heures de temps ma ñoom ba yàlla def ñu bàyyi ma ba ma bàyyi ba ma ñëwee ba camp ba sama benn collègue ne ma pour caporal sa téléphone mu ngi sonné sànq ba léegi ma dem jël ko foofu dañuy lonk foofu dañu doon yi. ma dem jël ko ne allo muy sama soxna ma ne ko na nga def mu ne am naa doom bu jigéen ma ne ko kañ nga am doom bu jigéen mu ne ma ay fekk ay quatre de temps boobu fekk na man rebelle jàpp nañ ba dooma torturé kon man jàpp ni sama doom jooju porte chance la ci man moo naa demee neen parce que immédiatement biñ biñ ñëwee takk sëfoor bi joolaa la moom dañ ko ligoté takk ko sànni ko fële ci ñax yi téema l'argent bi ma yoroon pour ordinaire bi yëpp ñu nangu ko heureusement foofu da dox ay ay pièces beneen bi. après nga doxee foofu ñu bàyyi. dañoo bàyyi ñu taral suñu moto ma ñëw ba camp ba ne seef révélé jàpp nañu jàppoon nañu ma de. yan xeetu dóor nañ ma menacé nañ ma pompeloon nañ ma def nañ ma lu ne li may wax nii ñu bari fekk nañ ko te bu di nga gis commentaire yi ñu bari na leen j'étais témoin des faits c'était à Diafoy Komboli le 15 décembre beneen bi dama am sama élément boo xamante ne nii damay du ma tudd mais il est resté sous le feu de l'ennemi boobu c'était en 2012 bi président Macky Sall di falu moo tax ku ne président Macky Sall bi muy falu retour rek tu n'étais pas en Casamance dañoo demoon Kawour bi ñu demee Kawour nekk fa foofu dafa am benn sëriñ bu mag bu fa nekk Kawour bi ñu fa demee sécuriser chaque chaque soir lañu dem sécuriser ko nu ñu koy sécuriser boobu la ne suba la élection yi premier tour élection présidentielle 2012 yi rebelle yi yónnee woon foofu message ci camp bi camp boobu moo nekkoon kër Ousmane Niantang Diatta yónnee fa message ne suba élection du am Goudomp gars yi demoon Kawour maa ngi doon waxtaan ak euh, le caporal bi boobu noonu Sagna la tudd ñu waxtaan téléphone ba am affaire yoo xamante sax dama ko teeloon ba ñibbisee moo waroon ko moo waroon ko rendre compte ci mbir moomu ñoom bi ñuy ñibbisi ci yoon bi ci lañ embusqué ak rebelle yi gars yi rey ko assassiné ko lâchement ci oto bi mu nekkoon diggante Kawour ak Goudomp loolu ça m'a marqué ba jusqu'à présent su ma déggee nit mu dimbali ma Sagna la sant rek ça me rappelle directement de ce caporal là que j'estimais beaucoup xam ànd nañ def lu bari maak moom il appartenait au troisième bataillon d'infanterie leen li nag mooy servir ak ak engagement bi nga xamante ni jàpp naa ne tey su ma doon defaat beneen mission man tey su tey su ma jëlaat ne ma liggéey armée laay choisir parce que je l'avais choisi dignement léegi damay génn ay ñoo xam maa leen formé woon di ma jox le respect total ay officiers ay sous-officiers ay militaires durant yu bari il ma donne du respect parce que na meloon ak ñoom man dama jàppoon ne passage la woon rek pour servir dignement ba mu jeexee da ñibbi sa kër kon boo ñibbi sa kër na nga fa dem ñibbi ak honneur même le bi ñu may libéré beaucoup de personnes ont pleuré biir camp ba j'ai vu des sergents chefs am dañ doon jooy jour boobu parce que dans la manière ak ni ma nekkoon mu doon yoo xamante ni marqué na ma trop vraiment et j'ai hâte de l'armée franchement franchement su ma woon suba ma dellu liggéeyal sama réew franchement mu arme rek laa xam xaw ma leen je un papa militaire des oncles militaires 19 ans laa dem armée armée rek laa xam boo ma gisee sama kii sax xam ni ma nitu armée la moo tax yu lu bëri lu xam lu yow moom bokk nga ci ñi nga xamante ne nii euh, sénégalais laa war a tappal raaya ndax koo gis ne mën na indi luy doxal réew mi rek invité nga ko waxtaan moom sa xalaat di gërëm tamit le président Bougane Gueye Dany di ñaan président Macky Sall que ni des média be des milliers et des milliers des milliers de famille la yor te ñoom ñaari ambition la ñu am tey du tëj des médias de mais récupérer immeuble des médias ensuite récupérer immeuble jooni jooni ñaari immeuble bi lañ bëgg a saisir ci Bougane mooy seen xeex instant bi maa ngi sant ñëpp di leen gërëm. jërëjëf jërëjëf. merci. leader mouvement génération patriote ngir Sénégal.